loolu loolu problème casamance ñoom. mais mais Babacar da ne la ci ñan la jógee. ci kan la jógee waaw dama la dama ñu ne leen wax ñu ne ci moom la jógee. dama ñu ne leen wax ci mi ngi teg ne leen nañu wax ci combat rek. ok waaw léegi kon problème bi kasa la. waaw kasa la waaw nii. kasa bi ci kan la jógee. man maa taxoon ne ma fay tànn. kon loo waxante woon ak ñoom avant ngay ñëw fii. loo waxante woon ak ñoom. waaw daa am loo xamante ne teg après man ne loolu génnaa naa si man wax si kese. kon yow yaa yow yaa génnaat ci wax ji mais du ñoom. maa génnaat wax ci man nee na damaa bëgg léegi wax si kese bi. mais mais du ñoom man la man mii yow Issa Pouye yow la waaw man. ok mais est-ce que euh, Fatou ma la ah, kay la kay wax dëgg rek. waaw dëgg dëgg dëgg moo nekk yàlla waaw ñoom ñoom dëgg yàlla. waaw defuñu dara. defuñu dara vraiment ñoom. waxal ak moom. gën ca la nga waxoon waxal leen leneen. laa waxoon li ma wax nii moom alaata. amul micro quoi. ok kon da nga waaw wax daal pour mu gàtt da nga gën ca la nga waxoon waxal leen leneen. loolu loolu ñoom wax ñoom d' accord. loo wax mi tuuti wala nga ko waxtaan. fay ma nii fay ma nii. baax na la fay nii mënuma la fay la. mais dafa am ci prix bu ngeen njëkkoon a déggoo nag Issa yaakaar naa. prix boobu fekk la ma wax dama la ma wax nekkoon naa ci. waaw mën naa ne mais dama la. dama gën a waxoon ne que loolu arrangé ma lii moom arrangé moom. li ku nekk mu daa wax la arrangé. mais est ce que la nga waxante woon ak ñoom ba ngeen tënk ko ba tax nga déplacé wu ñëw fii dooni ñëw ñoom ñu ñëw est ce waroon na génn ci loolu wala. waaw parce que tey xalaat maanaam nit ku dul moom maa jub. kon bi ngay wax xalaatoo ko. xalaat naa sama nit ju damaa jub waaw mën naa ko waaw mais affaire bi Babacar. affaire bi waaw affaire affaire kese la. wala wala mbët bi ci boppam nga bëgg ko jël wala. Ah, déedéet Tony champion dama la am na ñu ne am na ñu ne Issa da koo bàyyi xel moom moo tax mu bëgg ñu wax loolu de. Tony xaw ma ko sama ngay bàyyi xel. Tony Balla Tony koo xamul. waaw man man toll nga foofu. man xam nga tax. waaw waaw ah, Tony xaw ma ko maanaam champion la dama la maanaam man tàkk moom mbër ma maanaam. ma xam laa gëmoon lu ma gëmoon man nekk ci man laa gëmoon. yaa ngi dégg bu nekk ci man laa xamul man xamul keneen na ci. doog a xalaat. waaw dëgg nga man nangu naa d' accord mais dama mhm. am mbokk. la lu ñu waxaale waxaale a na jiitu balaa ngay nangul. problème bi dara nga waxtaan ak sa staff boobu ak sa mbokk yooyu. waaw ah, d' nit tamit comme ne nga da am ay mbokk te ñëpp dañoo ay mbokk. balaa jóg est war na wax ak mbokk ba pare. waaw xanaa nit day jóg bu ñu wax juum kay wax jeex juum bi kay daa flagrant nag waaw ñu soxla ñu jëm gaa yëg ci kaw rek waa ñu am ñu agsi kaw rek wàccewaat ko loolu dara est-ce que ñëw ba fii xool tool yi waaw eh, waaw est-ce que xam nga ko xool gisoo ko ba léegi dafa ma wax ana tool yi ana tool yi wala nga def mais ana tool yi euh, Issa après prix bi dafa seer quoi ah, non prix bi mu wax ñaax la laaj non man seer moom xam na ndax moom may ab la nga wax dëgg non non jarul may wax dëgg la ngay def digg bi ngay laal dëgg la ngay tamit tamit comme déplacé nga man man dama la jógee ba jant ñëw. fii ñu ngi fay ay millions. waaw maa ngi dàq ba ne après le victoire. Hmm. nit ñi xamul kan maa ngi la man. fii nit la a xam sa bopp ma xam naa maay kan xam naa la la ñàkk ba ne yàlla bàyyi ma. Hmm. mais nag soo demee sa biir da ngay jàpp. loolu sëgg da koy jar. waaw su ko jarul. waaw na nga ci mën loo a préparé mais ne doo lekk ceeb mu jeex. dama def mais ba tey jii buñ la yokkalee nga jël ko. ma yokkoon léegi ñu bu ñu yokkee prix bi nga yokk nga nga am ci sa xaalis. nga yokkee ñu d'accord mais est-ce que ñoom duñ mën a duñ mën a. ñëw parce que comme daa waxante woon ak moom bëtt. pourtant li may laaj mooy bëri. ah, ah. <laughs> ñu dolli la. li may laaj ñoom bëriwul li ma xam li may laaj ñoom ñu xam ko am nañ ko. loolu bëriwul man nag mën na maa dëgg la am man de. li may laaj. dëgg la mais tey li jaaxal itam mooy choix bi nga am ba bëgg a bëri tuuni wala bëgg a wàcc bëgg bëgg a jox xale yi waaw mais lamb yi grand ko ci la waaw loolu wax yaa ngi dégg dama wax bakki dama yaa ne ba léegi damay damay situation situation lamb yi nga lamb ji ñi mag ñi ñoo war a wàcc bëri booy yi loolu mooy man yëgën ni muy def yëgën day may gaaj ku ne trois fois roof la man doo xam ne ko may revanche wax ma kal na kenn mooy la revanche may revanche Balla Gaye kenn mosuma may revanche làmb ji nga tegoon ci yoon kon heure bi du wax sama tuun mais ñàkk a teg làmb ji yoon moo tax da ngay dem da ngay teg ko assiette leneen mhm. làmb ji nga tegoon seen dëgg mais tuun tam daane xale boo xam ne daane ah, ñi ko fi bàyyi ba waaw tuuni day dañ koy dégg man maay mbër moo xam ne man tegguma kenn man man tuuni day moom lu mën a xew ah, dëgg man la man xale jëndee dëgg man la man man léegi si man amu ko may métti lamb sama amu ko may métti lamb ma bàyyi bëri wax dëgg man métti hmm. ma kenn. waaw xale bi dara tiitalu la ci moom. ak ak xuraan kenn bu ma kaa gis sax xanaa benn laamu benn laamu si daan nii mais suñu taxaw nii ma xamoon na may gis. yaa ngi dégg bu génnoon sax xam naa. yaa ngi dégg waaw fu ne toj na fa de jël na hmm. drapeau chef de l'État. am nag hymne national fan yii sama ngeen regroupement. ni waa ñu bëri maa ngi bëri sama loxo laa ci yéen bëri bëri bëri ka ñëw si man ñëw si man di nga tourné. Hmm? bëri bu ñëwoon ci yow nga tourné ko. dama laa bëri laa. waaw bu ñëwee ci yow ba daan ko jël bu rek yàlla dogal na ñu man man la. ma tuuri waaye d'accord waaw na Tony ñëw parce que tamit. waaw xam nga Tony jógee na Kër Mbir ñëw ba fii. Issa jógee Thiaroye Ablaye Diakhaté jógee Jëndeer. ñoom ñëw ba fii tase. presse ñëw. Issa nee na moom la mu moo ca ma am ma ma la ma jox sa gën a la am mais différent bi différent bi est-ce que bare na mat na 500 000 li fanaan man naka de man sa ay man ah, li nga li nga bëgg ñu doole la ko mais xam nga doo wax kese bi mais mais mais di euh, euh, euh, diggante bi ndaw la muy laaj damal la damay laaj daal damal la nga fay nga bëri day leer bu la ko fayee nga bëri waaw man noonu mu solo Bamba Thiam naaj bi tam tàng na te yaakaar naa moom daa war a déglu kër gi waaw kon daal maa ngi maa ngi dem ba léegi léegi lan lay teg ci loxo sénégalais yi ñoo lay loxo sénégalais yi jël wax kay leer ragal na sax sas na maa ngi fa woon mais léegi ma fexe ba ñëw bu ko xam bañ. sas kooku xàññi ma mbër. dama la kooku fay kooku. Ah. maa ngi ko jël waxal. mais mais mais liñ la fay fii nii buñ la ko fayee ci sa diggante ak sas nga jëm. wallaahi saa dara ma bëri moom. sos mais waxu ci man dara dara dara dara dara. leer na ana Touré mu ne du waaj. ok ah, ok am na solo. jaajëf ah Touré. Hmm. suñu yomb kon tamit amaana dafa laajtewaat ñu koy affaire yooyu mais comme loolu la ñun mënuñ see wax parce que comme jotuñoo signé lii moo fi ñëwoon indi yàlla dogal lii dañuy sant yàlla bu baax di waxaat suñuy bokk tamit incha allah li si kanam moo gën. mu tànn mu daan la. waaw waaw gëm-gëmam loo rek. ñu ne moom day bëre bay wëndeelu. ne laa mu kenn dàq ko ci bëri. ba pare bàyyi fi avance bi loolu moom boo ko waxee tamit xam nga gars yi moom dañ koy xool ni koy gëmee rek mais daal en tout tout cas acte bu rafet la doon dem parce que démb dama ko gis mu def benn interview ni ñun Balla Gaye nañ may gars yi chance mhm. parce que ñoom dañoo may chance bi ñu si toll da leen may chance tey mhm. mu ni prêt na pour may Tony yi chance ak ñeneen ñi mbër yu ñu tuddoon mhm. kon tamit bu demee ba si biir tey mu wax ak promoteur bi ba juboo tey ba si biir mu ñëwaat di waxaat di yokk ay kase loolu moom ak promoteur bi la waaye Tony moom mu ngi fi mu newoon tey ak suba incha allah ànd ak mboo mbokk pour liggéey incha allah. Mm-hmm. mais instant yii nii pare nga pour jël beneen avance boo xamante ne nii proposé nañ la ko. waaw ñun dañ beneen ci làmb ñun bis bu ay avance la ñuy proposé. Mm-hmm. yàlla xam na loolu bis bu ne ñu proposé ñu ay avance ba démb ba sax la mujjee promoteur yi ñu ngi may dégg xam ma. Mm. ñun amuñ problème mu promoteur ndax ñun dëgg dëgg Diender production dafa yàgg doo suñu combat pendant un an mu koy jéem a décroché mm. mais si programme mu adversaire la woon ñu ngi doon béral ñeneen promoteur loolu loolu parce que Babacar ñun buñ waxante dëgg rek ñun ñi ngi def esat tey force promoteur yi bëgguñu ñun wékkuñu si kenn pour mu jëndal ñu ay ticket mm-hmm. xam nga suñ mbooloo lañ yor mm-hmm. xam nga kuy fay ba fay beneen adversaire bi ñuy bëree mm-hmm. kooku moom leneen lañ war a wax mais du combat bu jafe mais mais mais à part Issa wuñ la woon keneen waa jën la waaw ñun non Issa lañ doon wax si Issa lañ doon wax xam mais comme Issa antuwul incha allah ñu ngi xaar ñeneen ak ñeneen. su gën a néew bëri quoi Issa rek du bi mbër ah. ok dañuy liggéey la jàngal. dara ana nekkaat ci affaire rek. daas xoosaat xam nga. Mhm. xam ni tey ñu ngi ci dara parce que peut-être bu ñëwoon fekk ñu newuñ ci dara dina profité pour jël booy bi. mais tey lii gis na booy bi xam ne amul fu mu ko mën jaar. moo ni ah da ngaa yaakaar ne kon daal di lu ko jaaxal. non parce que tamit nañu waxante dëgg rek ndax nit mënoo wax ak moom pendant 15 jours ngeen jugoo si kase ngeen ñëw ba tey dernier moment ngeen war a fisel combat bi nga ñew di waxaat yeneen ci te manam bam mu bam la ooyee demba wala mo wala tay ne la dañuy finaliser combat waron nga wax ci problème kase kon jot nga jot nga neexal maray wa jot nga neeral neexal ñi way combat bi ma def ci 1 million te commencé sama barki yàlla to mais mooy li ma lay wax rek ñun dañu am ay mbokk bind ci kay waaw dañoo am ay mbokk te sétan nuñ ñu xam dañuy jappalé bu baax ñun dañu lamb dañu soxla ndeysaan ku lamb soxla nak su tollu wo foy lekk lamb ñun tollu ñu fu ñu lekk làmb dañuy jox làmb waaw mais loolu dara moom moo ma jox trois cent yi sax. ndeysaan mais nuyu bu baax suñu ménagère. di nuyu ñëpp bàyyiwul kenn di nuyu jëndeer almaktum gis nañ coono yi ñu ci am. Mhm. pour combat bi taxaw gis nañ monsieur le maire Maguette Mbaye amuñu taxaw fayam. ndeysaan monsieur le maire Maguette Mbaye Morlo Ablaye Niang kenn amul seen fay. Mhm. gis nañ coono yi ñu daj ngir condition yàlla xam na tey. mais moom moom moom dañ fay déggoon digganteem ak Talfa sax. waa ñun dañ fi ne pour làmb xam nga tey man mooy li may wax. mais ñun ñëpp dañoo lekk avance parce que ah. Ah. benn wax. benn ñëpp lekk na avance toog di xaar. benn wax làmb di wax mooy talfa man promoteur musuma woo. ok proposé ma ko ah. kon si journaliste yi rek laa koy dégg moo tax mënoo wax si combat mais ku la ko jox nag. non non ñun dañ fi ne pour làmb xam nga fi ne pour làmb kay bàyyiwul kenn. ok bàyyiwul kenn si làmb. kon nag ñang baalo. bàyyiwuñu kenn Babacar dama ne ñun si làmb ji hmm. mais dama ne hmm. mais mais Bamba Thiam moom ñang baaloot day metti de. non làmb ju neex la. Guiro Seras. Coly Faye 2 Tonnerre moom am na lu ma ci waxoon. Babacar ñun dañuy liggéey ci làmb tey dix combats lañ def dix victoire di mobiliser. di indi ful ñëpp xam ni kii day indi ful. tey moo soñoon ñu jox ko combat boo xam ne dañ naan lii combat tey am na. ah loo xam ne dañ naan tey mu dee. na combat tey Tony dee. mais ñun supporters yi dañu ko wax chaque jour sonn nañ ci Tony mooman sonn nañ ci nañ ñu may chance ñu yéeg. yàlla xam nañ mais mais déggoon combat am ak l'an yooyu yëpp bu ñëwee baax na. lan 2000 lan lan 2000. dama leen ni yow Bamba. waaw dañoo péré Jordan man damaa déggoon loolu. Jordan sax moom digganteelu Jordan sax dañ cee sori. dama ne ni pere pour ñëpp en tout cas Tony Junior pere na pour ñëpp pare nga pour ñëpp daal pour ñëpp daal am na kontaan nañu di nuyu ñu kenn presse bi fi daje yëpp tamit doon xaar bis bi waaw mais ñu xam ne lii la yàlla dogal macha allah di remercier ñëpp rawatina suñu ménageur xam mm. di remercier waat monsieur le maire Maguette Mbaye amuñ sa fay gis nañ taxawaay yi ngay def ngir booy bi di si waat Ablaye Niang Mor Lo gis seen taxawaay ngir booy bi a ñu ngi yëpp bàyyiwuñu kenn daal. jaajëf jaajëf Ablaye waaw waaw parce que. ak ay mbokkam daal. moom combat bi. Mhm. <laughs> mooy waaw salaamaaleykum ñu ngi di nuyu yéen mbokk internet yëpp di nuyu Sénégal yëpp di lamb yëpp kaw ba suuf ñu ngi nuyu ñëpp waaw Babacar. Mhm. waxoon nañu ba d'accord ba tey jii si 9h si suba ba 10h. Mhm. maa ko woo téléphone ne ko nañ tase arène nationale. mu ni ma foo toll nga ma ne ko départ gu ma su ma départ la woo départ naa woo ko. Hmm. ne ko départ na mu ni ma waa man maa la gën a jege moo ma jiitu fii sax arène nationale waaw te ñun booba liñ jàppoon mooy mhm. bu ñëwee dañuy ficelé combat parce que waxtaan nañu ak moom ba d'accord hmm. lép ñi ngi ko taxoon tegoon si loxo alaaji Ndooy mi ngi doon waxtaan ñoom bi mu d'accord ak ñoom it wax nañu hmm. moom si boppam confirmé ne ma d'accord na ak moom bi mu ñëwee ba fii nag bi ma wàccee si oto bi la mu wax kaañu ñu gisee kaa ñu ah ci la waxee leneen ma ne ko continuer wax ak ki nga doon waxal ok bon waxtaan na ak Ndoye hmm. xëy na li ñu bëgg li mu moom mënul nekk parce que waxoon nañ ba pare. Mm-hmm. da ngeen tënkoon benn prix ba pare. tënk nañu prix ba d' accord si combat bi ba dara desul. fii sa bi nag moo des ba joxante rendez vous fii arène nationale. Mm. yow bu ma xëyee dama laa woo ne la am naa combat bu may fisale. loolu am Tony Junior mm. bi ngeen wala Issa ci boppam ngeen doon que loolu du erreur. waaw mën na nekk mën na nekk erreur ah. tamit. Ah. mais moom si boppam Issa. Mm. sama premier jour ak moom dama ne ko kan mooy sa manager. Mm-hmm. mu ni man maay waxaale sama bopp sama combat. Ah. moo ma ko wax moo ne ma maay waxaale sama bopp sama combat mhm. bon mooy waxaaleel boppam combat am nag joxuñu turu manager manager am fii ma taxaw nii tey ñëw ba si arène bi mhm. bi muy discuter ak booy ba pare sama benn alaaju ndoy moo ñëw na ma nee na Matar Ndiaye mooy manager am mais man xaw ma xamoo ko woon xamoo ne Matar Ndiaye mooy manager waxuloo ko mosuma wax ne ma diw mooy sama bi ma waxee manager dafa ne ma kan bi ma ne ko kan laay waxal ci combat bi dafa ne man man maay waxaale sama combat sama bopp ok tey la changé avis mais waxoon nañ loolu yëpp. mais combat boobu tamit kenn mënu ko négocier ba mu am. non moom bu paree rek. non moom boo ko joxee li muy laaj moom mu ñëw. waaw ah. non li mu li mu laaj moom. dafa bari dafa bari. mun ma ko jox xam nga dëgg moom neexul. mais différent bi bari na différent bi bari na. différent bi bari na. boo ñëwoon sax wax genn wàll wala kii mais ñu wax la lii nga ñëw teg si juróom benn ne nañ la joxaat lool. maanaam li nga ko ko daal laajat lu ko ëpp wala lu ñu toll. liñ ko liñ ko ah, liñ ko fayoon D'accord, d'accord, double trois fois. Eh. tu hmm? mais à part à part avance tamit amul amul leneen lu ngeen waxtan ci walu keuy waaw da ngeen waxon ci walu ay visa. mom mo wax nañ ko defal ci contrat ok légui nak ah lolu mom ça. la rek. engagé wu. la xew. wax nañ nañ ko def. ñun li ñu woon mom ñun pour remplir suñu contrat ak mom mom ça, ñëw ba fii kon la arrangé waaw ça. la combat bi ah, na am dafa gis comme Tony léegi nu ngeen koy def Tony ah ñu ngi continuer di ko waral adversaire rek hmm. buñ ko amalee buñ ko amaloon tey tey tey tey tey waaw waaw dégg nga loolu Tony Lan 2000 waaw mën naa ne mais ñoo ñëpp yaakaar naa jaar naa fa de ah jaar nga ci Lan 2000 mu delloo avance hmm. waxtaan naa ak moom dañoo jubóowul ah, hmm. ah. ñi gars yëpp ñu ngeen di lim fi yëpp ay waxtaan jàmbaar ay